salaamaaleykum yaa na ngeen def maa ngi leen nuyu leen ziar den fàttali yéen seen canal Galsen Tube ci seen programme comment gagner de l'argent sur YouTube vidéo bi ki leen koy defal di Pape Mor Lo ñu leen koy defal en wolof ci canal Galsen bi nag mooy deuxième vidéo dugal ci journée bi nii parce que am na bu ngeen seetloo vidéo boo xam dugaloon nañ ko muy top secret lundi bi gëj nañ ko def sax parce ñaari lundi am na defuñ top secret top secret lundi bi dugal nañ ko si 18 mais vidéo bi jotagul ak boobu dara sa boobu wax naa leen ba suba ci vidéo bi ñëw parce que suite bi ci filmora montage ci filmora suba laa koy def incha allah mais bi vidéo monétisation la parce que dafa am euh, ñaari nit ñu ma envoyé question te seen question yi jegante ñoom ñaar ñëpp ci lii lañ ma envoyé mooy zéro yi ngay gis ci AdSense ginnaaw ñoom bañ defee seen monétisation ba pare dañuy xool ne heure bu ñu duggee AdSense xool ay zéro lañ fixe loolu nag jaaxal leen ñu posé ma si question ci mujjee posé question nag ma ne ko comme kenn daf ma posé question léegi wartul une heure temps yow tam nga posé ma question kon cela veut dire que bëri na ñuy monétiser ñoo xam ne xëy na jaaxal na leen kon bàyyil ma réponse ma def ko ci vidéo def ci ay leeral comme sa ñëpp mën si jàngaale loolu moo moo gën a pratique moo waral vidéo bi léegi boo monétiser ba pare YouTube boo ñëwee AdSense automatiquement lii nga fay fekk mën nga dem ba weer lii nga fay fekk voilà léegi nag ñu bëri dafa leen jaaxal dañuy defe ne bu ñu monétiser rek automatiquement publicité bu daw si seen YouTube rek automatiquement dañ leen koy fay indil leen ko fii ak mu tuuti mu bëri mais daal nañ koy gis fii muy dal seen xel voilà te demew fonctionné wul noonu am naa expliqué woon naa ko ci beneen vidéo mais defuma koon vidéo spécifique pour loolu xëy na moo tax ñu bëri dese ko comprendre parce que boo monétiser ba pare nekkul fii nii ci AdSense ngay xoole si xaalis bi ngay gañe xaalis bi ngay gañe chaque jour yaa ngi koy xoole fële ca YouTube YouTube am na fa partie bu tudd après dañ fa dem léegi wan leen ko bu tudd YouTube Analytics YouTube Analytics boo ci duggee moo lay wan données yi nga xam ni ñaari fan ci ginnaaw la parce que jour bi nga nekk tey nombre abonné yi kese la lay wan temps réel ñiy abonné sa canal moom boo duggee ci canal bi ku abonné léegi léegi def na benn seconde dina la ko mais bu dee xaalis bi ngay gañee li nga gañe tey si say vidéo yi daw am publicité du ci bokk li sa vidéo yi démb publicité yi dawoon démb du ci bokk parce que il faut mu am ñaari fan pour mu calculer ñaata nga gagné pour verser la ko ci YouTube loolu nag journée bi nga nekk nii du ci mën a bokk parce que journée bi nga nekk mi ngi daw vidéo yaa ngi daw defaguñ calcul bi xaalis bi duñ la ko mën a verser parce que loolu du automatique démb tamit xaalis bi defaguñ la ko defaguñ décompte bi moo tax toujours day am décalage ñaari fan li nga gañee ci ci AdSense te muy feeñ ci YouTube Analytics montant bi ñu la fay defal tey ji journée bi nga nekk bokk si démb bu bokk si waaw barki démb lay jëm jëm ginnaaw lay compter loolu ngeen xamee ko noonu voilà xaalis boobu nag léegi publicité yi daw liñ ci gañe bu ñu la ko defaleele foofu day toog un mois bu toogee weer la la ko YouTube di indil ci AdSense ak nu mu munti toll indil la ko fii ci AdSense bu la ko indilee fii ci AdSense nag léegi fii lay figurer voilà fii lay nekk moo xam mu di euro fii lay nekk moo xam 100 euro fii lay nekk moo xam mii euro fii lay nekk. léegi bu toogee fii dina jóge YouTube comme ni ma leen ko waxee woon diggante le 10 ba le 15 lay jóge YouTube ñëw AdSense bu ñëw AdSense figuré fii bu figuré fii dina fi toog su fekkee ëpp na 70 euros voilà bu fekkee ëpp na 70 euros dina toog fii entre le 20 ba le 30 ñu versé ko nga jot si bu fekkee nag matul 70 euros par exemple ñu ñu joxoon la benn paiement paiement bi nekk 69 euros wala 50 euros wala 60 euros maanaam daal matul 70 euros fii lay ñëw toog kenn du la ko verse gum parce que matul 70 euros ndaxte AdSense du verse lu manqué 70 euros léegi nag beneen weer bi ci topp ñëw ba nga dem ba ba weer bi dee xam nga li nga gañe ci weer bi dee gañe nga ko léegi ñu dajale ko bàyyi ba 11 ci beneen weer bi topp ñu soog la ko versé mu ñëw fii ci AdSense weer bi ci par exemple gagné nga 80 euros te gagné woon nga 60 euros boo ko xoolee day nekk cent quarante euros kon ëpp na 70 euros 140 euros yi fii lay daal di figurer bu nekkee fii bu demee ba le 21 diggante 21 ba le 30 ñu versé la ko ci méthode de paiement bi nga choisir moo xam Western Union la moo xam banque moo xam lu mu ti doon ñu versé la ko. ci kaw mu fekk sa adresse bi validé woon nga ko ba pare lettre bi jotoon nga ko ba validé montant bi ñu daal la koy versé bu ñu la ko xasee versé fii zéro lay daal di defaat montant bi dootu fi nekkati moo tax képp ku dugg sa AdSense ngay gis fii xaalis mu figure fi xaalis boobu versé guñ la ko bu la ko versé dootul nekkati ci solde fii solde moo fiy nekk mooy xaalis boo xam ne gañe nga ko jóge na YouTube ñëw na fii AdSense waaye kenn joxagu ko fii lay toog ci solde bis bu la ko viré rek dootul nekkati ci solde noonu lay demee kon léegi ñu dem ci li nga xamante ni mooy YouTube bi pour ñu expliquer leen ko foofu tam fan ngeen di xoole seen revenu yi ngeen xam ni gagné ngeen ko AdSense bi ngeen xam ko genre compte banque la boo xam ne ci internet la nekk du compte banque booy dem ni mu am ay agence mais compte banque internet la waaye YouTube waa Google ñoom ñoo ko moom li ñu lay fayee YouTube nag fii lay ñëw transité fii def fi benn temps mooy fii lañ koy saytoo segg ko ba xam yépp jaar na yoon ñu soog la ko nag versé nga mën ci jot voilà noonu lay demee moo tax fii nekkul bis mu ne loo gañe lañ fiy def déedéet benn yoon parweer la payment yi jóge YouTube di ñëw fii su ñëwee bu matee di euros fekk validé nga sa adresse bu pare ñu fay la su matul di euros dafay toog beneen paiement bu ñëwee bu te te bu fekkee da nga jot paiement mu nekk 10 euros dafay toog beneen paiement ñëw nekk 20 euros xam matuloo 70 dafay toog beneen paiement ñëw na nekk euh, par exemple 30 euh, euros xam yaa ngi am 60 ba léegi matul jot nga ñetti paiement te matul dafay toog ba beneen paiement bi ñëw mu mat ñu soog la ko verser ci kaw mu fekk validé nga sa adresse ba pare voilà kon loolu j'espère que leer na léegi dañuy dem ci analytics yi wan leen fu ngeen di xoolee nag revenu yi boo ñëwee analytics nii analytics ubbeeku léegi gis nga da lay defal fii boo xoolee fii mi ngi la defal 28 derniers jours 28 jours yu mujj yi vingt 28 jours yu mujj yi nag mu defal la fii temps réel données yi ñooy nekk temps réel données yi moom à la nga koy am maanaam sa abonné yi boo clip boo jàppoon sa seen fii nga toog fii di xool su bouton bleu bi mel ni dafa def benn genre ji nga ji nga dafa réfléchir dafa yaatu ñëwaat benn abone bu yokk dala ko wan bu yokk bu fekkee dara yokk nga xam kenn yokk kenn ku abonné à la seconde koy wan fii voilà nombre de vues yi ngay am tam à la seconde la la koy wan fii voilà lii kase mooy nekk temps mooy nekk temps reyal ci li information yi la analytics di jot léegi ñu ñëw ci liñ ci intéressé muy montant yi ngay gagné boo xoolee fi mu defal la 28 derniers jours yi montant yi nga am li nga gañe fii defal la fii nombre durée de visionnage heure yi nga am defal la fi abonné yi abonné sa canal defal la fii montant bi nga xam ne gagné nga ko ci 28 derniers jours yi léegi montant bii nag. yi nga yu boo bëggee di xam chaque jour li ngay gagné fii ngay ñëw di ko xoolee fii voilà boo ñëwee fii boo ko xoolee di nga ko gis parce que fii fi lañ lay defal xaalis bi nga xam ne gagné nga ko ban période yi nga def 28 derniers jours boo xoolee xam nga liy tuuti na vingt 28 jours gagné 24 000 voilà ci canal boo xam ne abo kii na monétisé na xam nga tuuti na waaye nag situation oblige parce que tam coronavirus moo tax monétisation publicité demeetul noonu ñu bëri ñu doon publicité dañoo arrêté seen campagne en attendant situation bi loo moo waral léegi di nga dem ba weer dee boo moytu sax 10 000 francs wala 25 000 francs doo ko mun gañe voilà mais yal na ko fi yàlla jëlee balaa muy yàgg rek ñu indiwaat euh, temps normal bi mën a ñëwaat situation économique bi mën a reprendre léegi nag noonu ngeen ni ngeen ko gisee ni noonu lay demee léegi xaalis bi fii lay dajaloo bu dajaloo fii ba mu dem ba weer mais nag montant bi ngay gis fii nekkul ni weer bi ni ñëw moom ngay fayee ko de li 28 derniers jours la tey ñoo ngi lan tey ñoo ngi vingt 27 te lii muy 28 kan lekk na benn fan ci weer ba le passé voilà noonu nga koy xamee lii 28 derniers jours yi ma lay defal nag tekkiwul weer bi nga nekk mooy tekki daal ñaar fukk fan ak juróom-ñett yu mujj yi dina ci am toujours bu fekkee yaa ngi nekk la quinze ci weer bi kon xam nga jël nga quinze jour tam ci beneen weer bi passé wala 10 du 13 jours pour mu mën a mat 28 waaw noonu nga koy xamee bu dee nag da bëgg xam weer bi nga nekk exact ñaata nga gañe fii ngay ñëw fi ñu def 28 derniers jours nga cliquer flèche bi boo cliquer flèche bi nga ñëw mois d'avril nga nekk nga wàcc fii nga def mois avril voilà nga cliquer ko boo cliquer mois avril di nga defal na la mois avril li nga gagné mi ngi nii du premier au vingt 26 avril di nga yaa ngi gagné 23 956 voilà di nga tey ñu ngi la le 27 avril di nga dugalu ko fi le 27 avril bokk fi démb vingt 26 moo tax mu boole ko foofu journée démb du bokk ci calcul bi mais du premier ak vingt 25 xaalis bi nga xam moo bokk mi ngi yem le 26 voilà journée le 26 du ci bokk journée le 27 bi ñu nekk tey du ci bokk nga xamee ko noonu léegi lii nag su weer bi deewee bu ñu demee ba le 30 wala 31 léegi li nga fi gañe woon YouTube moom jël na ko téye ko di ci def nag ay calcul xool ba xam ay tappaleeg yooyu amu ci bu ñu demee ba le 11 le di à partir du 10 le 11 12 13 14 15 diggante li si ëpp le 11 lay nekk sax waaw mais daal diggante mën bu pour bu tardé nga xam mu daat koy jëlee fii YouTube dem versé la ko fële nga xam mooy AdSense voilà noonu lay demee waaye terewul tam boo duggee fii ba léegi da nga nekkul da la koy versé AdSense rek boo duggee fii zéro la fay def déedéet lii moom day continuer parce que calcul buy continuer la. voilà seulement chaque weer li nga fi am dinañ ko jël versé la ko fee mais information la rek moom day continuer nekk fii. voilà bu ñu la versé fee nga ñëwaat fii nga dugg fii nga defee ne amaan nga fi lii automatiquement non non parce que même montant bi la rek lii moom day continuer figurer ngi mel ni ji nga boo sélectionné fii nga def 2020 bi ñaata laa ci am 2020 bi yëpp ci nga mu defal la nii nga mu defal la gis nga xam nga lii leer na te pourtant am na loo xam ne versé na lañ ngi nii bindaat na ko fi voilà nga xamee ko noonu léegi lii mooy daal li nga xam ne leer yi ñu doon indi ci. li tax boo AdSense bi ngay gis ay zéro te nga monétiser te gisu ko fa xaalis parce que xaalis bi kenn du ko fay au jour le jour par weer bu weer bi deewee bañ dem ba le 11 diggante le onze ba quinze la ko YouTube di xool li nga gañe ci weer bi ci YouTube mu jël ko yóbbul la ko AdSense bu fekkee nga valider sa adresse te ëpp son 70 euros te dugaloon méthode de paiement automatiquement jot nga sa xaalis tege na sa loxo su fekkee ni. matoon na ëppoon na soixante-dix euros te validé ko sa adresse dafay toog di xaar sa xaalis sa yaa ko moom doo ko perte bu fekkee ni matul soixante-dix euros moo xam validé nga moo xam validé woo day toog di xaar beneen paiement beneen weer ñëw pour compléter pour mu mat soixante-dix euros pour ñu soog la ko fay j'espère que leer na bu fekkee tam am na ñoo xam ni am na point yoo xam ni des na leer seen bopp mën nañu koo bind ci commentaire dinaa ci ñëw incha allahu rabbi kon bi lii la woon deuxième tey loolu woon ci monétisation bi ñiy gis ay zéro ci AdSense ñu daal seen xel xam ni AdSense nekkul temps réel lay versé la ñuy jël xaalis bi jour di ko fa dugal mais par weer lañ ko fay def moo tax ay zéro ngay gis ba fii ba weer bi di dee voilà boo monet monétiser tam ci saa si di def ñaari fan yoo xam ne fii zéro nga fiy def te monétiser nga mais zéro nga fiy gis parce que il faut moom ñaari fan ñu soo commencé di la fi génne li nga am voilà kon euh, vidéo bi lii la woon ñu leen san leen gërëm seetaan bi ngoon seetaan di leen jox daje ba vidéo suba bi ci Filmora montage bi ci li nga xam ni mooy Optical Illusion